Mbacke Salim xale bu baax te yaru man damay posé sama question sax tout le temps moom loolu nan la def ba nekk bëri parce que eh, boo ko gis nit ku yaru nit ku yiw wane na ko ni làmb ji liggéey la waaye boo ci génne génn ngi ci doon mbër taxut teewu nit doon mbër teewul doon nit ku yiw Modou Lo noonu dina ci exemple yu bëri bëri ci ay làmbam te it dana ko ci fekk muy def naka suñu loolu Modou Lo bu amul làmb sax doo ko dégg kon loolu exemple la boo xam mbër yi war nañ ci jël am na suñu benn kilifa bu ñëw Yacine El alal jàpp Bambey le PCA toogaloo Diop Mbaye Gueye El Hadj Dia léegi nag ñu jox le roi des arènes Modou Lo mi nga xamante ni mooy su toppoon li nit ñi di wax wala nit ñi mu déglu li nit ñi di ci làmb xëy na dina doxale neneen waaye xam na ni làmb ñaari acteurs yi jaay. te buñ koy jaay faaw ñu tooñante kon monsieur le roi des arènes Modou Lo c'est vous la parole. aawuzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. dama bañ sant yàlla jël jant bi ñu ngi gërëm suñu ñaari waay yi nuyu assistance bu nekk bi yëpp di ci jiital suñu papa yi maa ngi seen ku mel ne Berkati di nuyu président du CNG Bira Sène di saluer initiative bu rafet bi parce que mënoon nañ bëre lu am am tamit lii bañ am parce que lii moom ma ne ko encouragement bu mag la pour bëri di nuyu journaliste yi di nuyu ménagères yi di nuyu président Khadim Gueye di nuyu monsieur kii rek waa Diom qui représente équipe Bale Bale di nuyu permanent de suñu Pape Diouf Ba la promoteur yi ménagères yi fi nekk ñëpp di nuyu suma frère Ama Baldé bu baax a baax a baax di kontaan ci moom bu baax a baax euh, sànq monsieur Diop rek moo ngi wax enjeu bu làmb ji amoon tey ci bëri ñu ngi doon tiit après làmb ji lu mën a am mais tey dañuy sant yàlla muy mën a keneen ak keneen ñu ngi doon toog di xalaat après làmb ji lan moo mën a am ndax làmm ji enjeu bu mu amoon ak coow yi mais tey dañuy sant yàlla ba alhamdulilah kenn déggu ci benn dégât loolu nag comme lu ñu wax rek Ama Baldé def na ci lu rafet parce que defe naa loolu moo ko war moo ma war man tamit puisque làmb la xale la comme ni ma ko waxee ci biir géew rek xam nga xale la jeune la li ne ci kanamam moo ëpp man mii bëri naa sama combat wala daanu bëri naa sama combat pour ma ñu daal mais tey yooyu moo ñu gën a def dañ ci jugee am lu ñu teg suñu kanam dañ dañ góor góorlu góor góorlu ba am na li xam ne dañu daal sport rek defet victoire ak match ñoo ànd ba tax na grand champion loolu def geste bu rëy boobu vraiment di ko ñaanal li ne ci kanam yëpp yàlla defal ko ci xéwal comme ni ma ko waxee rek xale la li nekk ci kanam bari na loolu di jéggalu tamit muy axlu làmb yëpp waa Pikine waa Parcelles tey làmb la woon dañ ko doon jaay ku ci nekk da ngay wax wala def li nga xam ne dañ déstabiliser sa adversaire mais di ñaan rek képp ku ma tooñ wala ku ma wax li nga xam ne la déranger la maa ngi lay jéggalu bu baax a baax a baax képp li nga ku wax li nga xam ne foog na ni déranger na ma la maa ngi maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay bu baax tamit parce que làmb la sport la bu jeexee jeex na ba tax na lii dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax c'est le Sénégal kiy gañ wax dëgg yàlla victoire lu mu rëy rëy rëy rëy génnu Sénégal Sénégal la yem ba tax sport la fair play la ba tax na di rafet na trop di saluer encore initiative bi CNG jël di wax yàlla na Sénégal am jàmm yàlla def Sénégal jàmm bu baax a baax daal ñu def ko nuyu encore suñu coach en présence di nuyu El Hadj Diabou Diouf léegi moom it sama waay la di nuyu suñu coach suñu entraîneur ak énergie yëpp di waa Parcelles encore 1 ba 26 fépp suñu supporter nekk waa diaspora bi yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm encore journaliste yi di leen jaajëfal te seen liggéey rafet na te ñun mënu nañ wax mais yéen a tasaare wax yi xam nga tey joué ngeen ci rôle bu rafet a rafet parce que làmb ji ku nekk xamoon na dayo mu toll journaliste yi ci leen dox muy les jeunes assurés ñëpp daal ci contribuer ba tax nag ñu ngi jaajëfal Sénégal yëpp di wax yàlla tamit jàmm yàgg di encore sama sama sama frère Ama Baldé di ko wax pour coordination am ci kanam yëpp yàlla ci yàlla def xéwal incha allah jërëjëf. merci. jërëjëf Modou. ñu rek la ñu fekkoon ci yéen di nuyu bu baax El Hadj Dia bu Fapal moom itam sportif la xam nga sportif du ay kuy takk dem bala muy fubal sport mooy def lu baax.

Euh, di jiital tur bi nekk suñu président muy président de la SEN ak équipe bu CNG bi yëpp parce que depuis ñu fi ñëwee ba tey honnêtement avancement rek lañ gis parce que man taxaw naa ci journaliste yi ma ne Bira Sène ma xamoon ne Bira Sène bi benn sama xarit la sama lépp la ay changements yu muy def te waxtaan mais bu ma demee ba topp ni kii liggéeykat la dafa ñëw taxawaat ne eh, moom bu ma commencé si bouteille yi nga xam ne dañ koy teree si CNG man jàpp naa ne changer jeu bi est ce que tuuti sax dafay dootu dugg compétition moo lay moo la tax a jóg boo ñëwee da ngay dugg rek compétition bi ngeen def bañ a guddal kenn donc CNG ñu ngi leen di gërëm ci loolu bu baax a baax.